créé ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. e pour man da ngeen may topp damaa bëgg lu leer rek de. dil ma kaar kat waaye. gis nga courant bu bëggee courant day difficile day bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko. mën na pompe mën na lii. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi jot eh, luy lu xew TV maa ngi nuy di leen cher bu wér a wér ci Habib Thiam la waaw di bon ma bëggoon xam ci bëggoon wax tuuti ci film bi donc voilà ñu ngi koy suivre euh, aussi merci à vous bu baax a baax a baax a baax film bi neex na trop gars yaa ngi ci concentré mais man li ma ci euh, est-ce que mënuñ topp benn benn histoire rek bu jeex waaw ñu jokk benn histoire mu jeex ñu soog a jëlaat beneen. parce que histoire yi dañoo bëri justice bi instant dafa bëri dañuy dugg lii parce que ndaw si dee woon ba léegi histoire am euh, jeexagul. waaw ñu jóge si loolu ndaw si aussi kii nii jabaru Abdel bi dee na léegi moom mu ngi ci justice pareegul euh, dafa compliqué quoi donc voilà da ngay dem beneen sant doo xam parce dañuy bàyyi histoire bi demaat ci leneen sénatrice bi aussi kii woon boobu agression bi mu ngi foofu noonu jeexagul. Euh, dafa compliqué daal mun bu ñu mënoon topp benn si ñu suivre benn ñu xam luy yoon di def ba mu jeex ñu doog sumbaat leneen mais histoire bi mais film bi lépp instant bi dafa nekk rek ay ay ay agression rek moo nekk ci film instant bi waaw ñu ngi koy suivre bu baax a baax a baax a baax a baax mais Abdel moom man dama ko dama ko classé quoi gentleman la mais daal mooy loolu quoi waaw dafa def yëfu yëf dafa ne fa cuune quoi day da deru deru deru ñi quoi day yàq deru góor ñi ba ci ëllëg mu nga gis gisante jigéen ju ju am bu yàlla may wërsëg nga bëgg nga bëgg koo jël mais après de yooyu loolu lañ ciy daw quoi parce que euh, comme si que dafa ñu def ñu def ñoo dafa yàq suñu dër quoi parce que dafa ñoo dafa ñoo def traite quoi waaw bu dee yoon sax ñun góor ñi sax instant bi dañ ko war a porter plainte ah waaw man Abdel bu moo gisee dama koy porter plainte dafa yàq sama der maa ngi leen nuyu dina ziar bu yore wéer baay. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV. tur bi nag dama koy leb man maa ngi nekk fii Mauritanie Sénégal la dëkk mais maa ngi nekk Mauritanie dama suivi émission bi vraiment vraiment film bi daf ma neex neex na ma trop trop trop trop surtout ah, surtout actrice bi hmm? surtout actrice bi amul nu ma neexewul ndax am na fulla xam na li muy def macha allah waa kii nag moom na bàyyi di ko tooñ xam na ni xam na ni moom ah, xam na ni moom xale bu góor bi moom la bëgg waaw Aïcha bëggul Aïcha kee la bëgg ana ana la bëgg ñoo ko bàyyi mu nekk ak moom te moom muuti geneen waaw moo tax muy ñëw di mbalak ana da mbalak kii waxu ko dara da mbalak rek. <laughs> oui bonjour encore en plus inspecteur di John nag teey nag teey nag teey nag teey waaw yéen olof ne bul dëgg na tëll bul rek ne na teey waaw moom dem na ba déclaré amuram ak xale ba mu gis kooku ànd ak góor tax mu bëgg changer décision bay songaat feneen dama ragal nag mu ñàkk tiis ñàkk as waaw mu daa nar ñàkk lépp nag waaw bu doon man damay téye waaw ki nga bëggal sa bopp gaa ñu bëgg la moo ëpp moo gën a neex mais tamit boo bëggee toppal sa mbëggeel ba mu jeex waaw ba mu xeex xolom